daje mi tay dañu xey rek japp ko dañu xey rek né dañ dañ koy def li ko waral moy démb ci conseil des ministres président de la république dafa génné benn communiqué dafa wax ak ministre de la culture né ko dama bëgg nga saytul ma SODAV nu muy doxé li fa nek lépp nga xool nag ñu gën a mën defee nu ma gën a ba teg li nga xamné moy moom commission de contrôle bi ñuy signaler ni commission de contrôle def dafa waroon am bu yak depuis nous ñu créer SODAV warul passé un mois ñu teg ci commission de contrôle parce que nous ñaar ñoo war demandé. parce que commission de contrôle boobu bu amul SODAV les lu muy rab dañ mettre entre parenthèses c'est-à-dire que du luy parce que amul kuy contrôler C'est ce loi bi moo ko wax ñun waxuñu maintenant nous nañu ba fii il n'est jamais trop tard li ñu mën wax nag que lii yàgg nañ ko xeex la fois dernière nous tassé fi. loolu moo doon suñu kàddu mooy dañoo bëgg xam suñu société bi nga xam ne ñun ñoo koy dundal ci koom naka lay doxee parce que amuñu ci benn bët amuñu ci benn gis-gis loolu loo war la ñuy wax accusé wuñu kenn je reviens waxuñu kenn sàcc la waxuñu kenn lii la sa à dire que dafa am loo xam ne loi bee ko wax mooy commission de contrôle bi ak SODAV ñoo war a àndandoo bu commission de bi amul c'est-à-dire que SODAV lépp lu muy def c'est-à-dire que du lu taxaw ci kaw loolu nag ñu ngi gërëm président de la république si décision bu mu jël c'est-à-dire que li muy def noonu mooy que mu ngi prêter attention ci li nga xam ne moom la acteur culturel yi bëgg te loolu yàgg na du tey parce que si fàttaliku mooy que ba ñuy bind loi bi boobu mu ngi premier ministre moom moo nekkoon premier ministre te momo moo génne woon si boppam xaalisam xaalis moo ko génne woon pour ñu rédiger pour ñu rédiger loi bi ba mu demee assemblée nationale fa la ko loi bi fekk moo fexe ñu voté ko mu ñëw nekk président signe décret donc tey bu jëlee décision bi ñun dañ ci sawar a wax te dañ ci kontaan dañ ciy bég c'est-à-dire que mu ngi ñuy bàyyi xel ci kaw loolu nag ñu ngi koy xamloo ne lenn moo am ñun lépp lu ñu woo pare nañu bugguñu nag ñu jël ay décision suñu gannaaw bugguñu kenn ku jël parce que ñun ñoo nekk ci terrain bi di liggéey li ñuy bëgg mooy lépp luy xew suñu métier nañu woo loolu kese la ñuy wax dernier point bi ñu bëgg a wax mooy li ñuy wax copie privée copie privée ben taxe la boo xam De fait, ñëw fekk acteurs culturels yi ñoom ñoo parce que tout simplement plus luy génnee musique dafa am taxe boo xam ne acteurs culturels yi ñoo maintenant ñun nag li ñu wax parce que copie privée bu ñëwee fan la war a dugg soo daaf la jëm moo koy séddale li ñuy wax moy xaliss bobu soxla wuñ ko tant que commission bi taxawul commission de contrôle bi tant que taxawul soxla wuñu xaliss copie privée di dugg fenn nañu fexe taxawal commission bi le contrôle permanent de contrôle bi ba pare suñ ko taxee maintenant lépp lu war a ñëw dugg foofu na ko dugg ñu mën a xam lan la parce que fu mu nekk nii kenn umpalewul ne artistes yi dañoo sonn te maintenant nag comme ñun ñoo moom suñu société société ni ñu bëgg mu doxee la war a doxee ni mu war a doxee la war a doxee loolu la ñam am li ñu wax di gërëm président de la république ak li mu wax décision bi mu jël mu ngi wan ni mu ngi bàyyi xel ñu ngi koy sant di ko gërëm te di xamloo ñëpp ne le 11 novembre bi incha allah dañu war def assemblée générale say bi le 11 novembre parce que demaguñu assemblée générale.